à CTV mbokk yi bu ko defee maa ngi leen di nuyu di leen baal xaq di leen baalu xaq di ñaan yàlla mi boroom jéggal yàlla jéggal waa Sénégal jéggal àdduna yépp ci bàkkaar yu ñu yëg ak yu yëgul bu loolu weesoo nag damay adresser benn message particulièrement au doyen Habib Sy di ko ñaanal mu yàgg fi te di ko remercier wax dëgg yàlla ci taxawaay bi mu am mais également damay rendre hommage ki nga xam ne mooy doyen Mody nekk nit koo xam ne war nañu bàyyi xel ci lii nga xam ne mooy ay kàddoom ndax amul kenn ku ko gën a placé pour wax ci bonne gouvernance moom mi nga xam ne dafa nekkoon au cœur de l'action au kër des enquêtes kon doyen Mody Niang lépp lu mu wax rek war nañ ci bàyyi xel également yeewi askan wi tey am na ay sénégalais yu bari ñoo xam ne dañoo jóge ci société civile bi ñoo xam ne dañoo yor seeni mouvement daw dugg si ci yeewi askan bi ngir bëgg a nekk député à l'Assemblée nationale député nag du promotion képp kuy gis poste député comme promotion mooy non seulement yow parewuloo mais comprendre loo les enjeux Assemblée nationale du lu ñuy caaxaane fi nga xam ne fa la ñuy càmbaree l'action des ministres fi nga xam ne fa la ñuy voter les lois yi nga xam ne day concerner ay génération ki génération foofu du mbirum caaxaan ndax dem assemblée nationale ñu jox la 4 x jox la ay litres gasoil jox la un million yi tegal jox la passeport diplomatique jox la immunité parlementaire loolu kan moo ko bëggul ci xeetu privilège moo tax may wax le doyen Habib Sy ñoom ci commission bi nañu def très attention ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw rejoindre Yewwi Askan bi en vue des ndax doomu aadama dafa am loo xam ne moo koy firndeel ndéem mënuñoo xam luy xew suba suba suba yàlla la mënuñoo xam luy xew suba waaye am na ci lu ñu mën a basé wu pour mën a anticiper as tuut ci loolu ñu mën a basé wu nag mooy parcours doomu aadama bi maanaam ñu dellu ca gannaaw ne waaw kii ñëw rejoindre Yewwi Askan Wi ngir ñu investir ko moom lan mooy trajectoire am loolu c'est important lan mooy trajectoire am c'est important ñu ne ah diwkat ci Ablaye Wade la nekkoon maanaam PDS la nekkoon ba PDS daanoo mu daw dugg réew mi dem ci Idrissa Seck bu duggul ci réew mi tamit daw na dem ci coalition Idri Idi 2019 ba coalition Idi 2019 tasee mu ñëw wut si yeewi askan wi. ndax doomu aadama boobu xel dal na ngir ñu tabb ko est-ce que trajectoire am bu ñu ko xoolee est-ce que xel dina dal ñu tabb ko yooyu mooy question yu fondamentale yi nga xam ne war nañ ko posé wu nit ki lan mooy trajectoire am ndax ma dafa am loo xam ne dama koo gëm maanaam nit da ngay am une conviction forte ci li ngay def te fekk ne postu taxul dara taxul tey boo xoolee trajectoire Guy Marius Sagna par exemple man depuis 2019 laa doon plaider pour Guy Marius Sagna bés ñëw mu dugg biir assemblée nationale boo xoolee trajectoire Dambodj da ngay gis benn constance Dame il est constant nekk syndicaliste yàgg xeex ngir àq ak yelleefu doomu aadama kon tey Dambodj kooku trajectoire am a rien à dire. sénégalais yi dañuy am mbégte gis Dame biir assemblée nationale am mbégte gis Guy Marius Sagna biir assemblée nationale parce que seen trajectoire constant la waaye ñi nga xam ne fépp fu ñu yaakaar ne foofu la rek ñu daw dugg fa bu foofu sottiwul ñu génn wut si ñeneen man je il faut faire très attention du ma accuser kenn nag. du ma accuser benn nit waaw ndax yàlla rek moo xam waaye ñun askan bi ñun peuple bi dafa am ay sacrifices yoo xam ne peuple bi da koo def je pense aux quatorze morts ci ay xale jotaguñu sax xam lan mooy bànneexu àdduna sacrifier seen bakkan ngir Sénégal mën a baax kon bu ñu xalaatee ñooñu mënuñoo noppi ci mbir mi ñun li ñu mën mooy artu ndax nekkuñu ci instance décisionnaire yi waaye li ñu mën mooy artu moo tax may adressé doyen Habib Sy ne ko naam nit ki nga xam ne ñëw ne ne gëm na projet Yewwi Askan bi dafa bëgg dugg ci Yewwi Askan Wi bismillah waaye dugg si ci yeewi askan bi taxul yeewi askan bi tànn la ngir tabb la c'est deux choses différentes te ki nga xam ne ñëw na man de jàpp naa ne même bu ñu ko tabbul même bu ñu ko tabbul bu fekkee ne Sénégal rek boo ko taxoon a jóg du ci am benn problème wax dëgg yàlla du ci am benn problème ndax poste tax ko jóg poste tax ko woon ñëw ci yeewi askan bi dafa ñëw ci yeewi askan bi parce que jàpp na ne le changement véritable la renaissance véritable bi ñuy xaar ci Afrique ci Sénégal yeewi askan bi moom mooy euh, mouvement mooy coalition bi nga xam ne mën nañ ko mën nañu opérer réellement changement boobu kon kooku poste taxul muy ñëw kon kooku amul benn problème bu fekkee ne tànnuñu ko kon di wax rek ne nañu bàyyi xel bu baax ci mbir moomu la te xool trajectoire ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw dugg si ci yeewi askan bi xool seen trajectoire lu am solo la lu am solo la ndax man tey boo nekkee fii fii baaxatul nga daw dugg fële fële baaxatul nga ñëw dugg fii man de wax dëgg yàlla duma la ne bul ñëw de waaye boo ñëwee it duma la tabb waaw boo ñëwee it duma la tabb ndax personne naa le droit de sacrifier sa combat personne waaw ndax la li nekk seen gannaaw moo doy waar bu ngeen xamoon sacrifice yi nga xam ne sénégalais ñu ngi koy def ci jasporaa bi ak biir Sénégal xool leen ndaw ñooñu rek nekk biir kaso nekk biir kaso ngir le président Ousmane Sonko ba ci biir kaso ba commissaire bi yëkkatee ay kàddu yu ñàkk teggi ne jëmale ko ci président Ousmane Sonko dañoo ne bu xet taxaw ne ko bul wax loolu nga gis ne ba biir kaso. il son prêts à se battre pour le président Ousmane Sonko se battre pour le projet que porte le président Ousmane Sonko te du benn projet bu dul projet bi nga xam ne mooy defar réew mi kon loolu mënuñoo seetaan mënuñoo noppi bu ñu gisee yenn manigance yi mënuñoo noppi bu ñu gisee yenn atitude yi mënuñ cee noppi ñun dañoo décider xeexal Sénégal te utuñ ci dara moo tax bokkuñ ci benn parti dugguñ ci benn parti yor ñu kàttu kàttu membre benn parti bu ñuy séddale ay post amuñu benn légitimité ñu dara parce que Sénégal moo ñu ñor du leneen du leneen Sénégal rek la ñuy xeexal lijjantiwuñu leneen moo tax ñuy artu am sañ taxaw tey jël suñu kàddu euh, maanaam teg ko ci réseaux sociaux yi pour Sénégal yëpp dégg ko xëy na amaana tey bu ma woon ci parti yor carte de membre parti nii may waxee nii du ma ko mën a waxee. kon nag doyen loolu le peuple sénégalais ñoo la koy ñaan candidature yi ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci trajectoire bi ñu am ba yegsi ci yeewi askan bi am na benn maire bu génn naan dañ koy tuumaal ne dafa transhumé alors que ministre bi la amaloon rendez-vous dans le cadre de leur coopération mu profitoo ci gis président de la république foofu la problème bi nekk. ndax balaa ngay gis le président de la république li xel gënoon mën a nangu mooy nga waxtaan ci ak yeewi askan bi waaye doo dem gis président ba pare génn naan dama profiter ci occasion pour gis président de la république man de neew ma da nga fa wax loo xam ne waroo ko wax wala danga def noo xam ne waroo ko def waaye dama ne rek li xel gënoon nangu mooy bala ngay gis président de la république nga waxtaan ak yeewi askan bi ba ñoom ñu xam lan moo ko waral. ñu jox la seen aval nga koy doog a def bu la joxul seen aval nga xam ne gis président la république du priorité te yàqalu la dara ci sa liggéeyu maire kon nag ñu bàyyi xel bu baax a baax askan bi nga xam ne benn espoir képp la ñu am te muy espoir bi nga xam ne moom la yeewi askan bi bëgg a jëmmal pour que Sénégal génn ci situation bi ñu nekk nii di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm jërëjëf. à CTV, la chaîne des patriotes.